voilà gars yi comme ni ngeen ko waxee rek ñu am contentement ci ñëw seet si koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi mu doon daanaan doon doon doon artiste artiste nag buñ ko waxee tey tubaab bi li tax mu créé ko mooy artiste mooy koo xam ne day créé ñun nag Sénégal dañu jàpp ne artiste mooy kuy feeñ télé wala mooy koo xamante ne star nga tey ñëw seet si koo xam ne ndaanaan la muy Tito Tito Takku ah gars yi gën koo ràññee ci tatouage yi seen waxtaan ak moom ci cadre liggéeyam frère nuyu naa la. waaw ngi leen di fay. 221. Mm-hmm. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm kay. naka liggéey bi. waaw ñoo ngi nii ah tranquille takkale comme d'habitude rek. naka ñu ngi nii rek ah ci kawam. yaa ci weer wi wala ngi ci wala yaa ngi ci koor gi. Euh, non ba ngi mm. ah, ah, nii la rek ba xama rek euh, genre personnel quoi parce que man gën naa wóor depuis donc du coup euh, ba nekkul ne ba eh, weeru koor ñëw na rek man tamit xool ma ànd ak nit yi naan damay wóor te xam naa ni. Euh, démb euh, genre bien avant koor bu julli ma woon naafila ma woon dugguma juma donc du ba su ma nee nii weeru bu ñëwee rek euh, ma ànd ak gars yi di ko loolu ngistal la hmm. donc du coup je préfère man continuer ci li ma ne ba saa yu mu bëggee dellu ginnaaw wala saa yu mu bëggee jublu ci yoon bu bu gën bi ma nekk peut-être man dinaa xam ne may changer mais loolu loolu loolu loolu sa choix bopp la wala comme ñàkk julli ñàkk woor wala boog liggéey bi la non mais nekkul liggéey parce que hmm. parce que mais parce que man jàpp naa ne liggéey liggéey ak diine bokkul. Mhm. comprendre nga mais que en fait euh, euh, man dama ne nii euh, en fait maanaam nit munoo mënoo comme que yow mënoo nax yàlla rek kon jarul ngay nax nit ñi. Mhm. comprendre nga parce que man lépp lu may def lu may waaj a def ak li ma jot a def ba pare borom mi xam na ko pare. Mhm. kon boog moo tax ma ne la carrément comme que man démb julli ma woon. barki démb julliwuma woon kon weeru koor gi bu ñëwee tey euh, mais tey xam nga ko mais exemple quoi. doo euh, euh, tamit mais man man yeewu xam ne carrément tey waa kër gi togguñu ak añ parce que papa dafa woor yaay dafa woor ñeneen dafa woor donc parce que manque de choix la. Mhm. man nag moo tax ma ne man ni ma meloon démb dama koy continuer. Mhm. ba suba saa yu ma décidé ne damay julli. Mhm. loolu en bu ñëw damay ànd ak moom continuer. tey ñu ñëw ci sa ci sa ci sa cadre liggéey. tey mu mel ni liggéey bi liggéey bi est-ce que est-ce que est que est-ce que yomboon na mu liggéey bi maanaam da nga da tëb tëb dugg ci. parce que tey wax dëgg yàlla Sénégal képp ku naan tatouage yaakaar naa tey bu nekkoon association man yaay président bi ku soxorul te loolu la ñëpp wax parce que loo defar mu jaar yoon te it nit ñi bëgg nañ la aussi liggéey bi foo ko tarbiyoo. ba fait liggéey bi euh, euh, mais man nag euh, manqué commencé bi ci ba may bi mu nekkee xale quoi ay côté 2006 comme ça. Mhm. mais 2006 ba mooy mën naa ko mais nekk loolu liggéey ci man. Mhm. parce que en fait dam dam ko bëggoon pour sama bopp mais bon vu que dafa cher et tout dama du naa leen may leen ma damay dem tatoué ji tout parce que danga xale laa woon. Mhm. ci laa commencé euh, laajte ay ay nit quoi ñu ne ci laa ne kenn quoi kenn ko xam na ko man pour koy defee ay puso ak euh, ma xam ne ma xam ne loxo moo koy def tamit am naa loxo donc du mën naa ko def. ci la commencé. Mhm. fa la commencé quoi après mais de, de base pour sama yaram. Mhm. mais du woon pour ay di ko jaay wala ay di commerce avec. Mhm. tey ban moment nga yëg ni carrément liggéey bi kat man war naa cee jëriñu liggéey bi kat nit ñaa ngi ma ciy commencé bàyyi xel. en fait loolu moom euh, loolu euh, mais depuis 2011 la woon. depuis 2011 ba euh, mais nit yi dañuy dañuy dañuy may woo dégg naa yaay yaay tatoué diw ma dégg naa yaay tatoué diw tatoué ma et tout. léegi nag ci xam nga commencé ma ci sonnal en mais parce que man lépp loo xam ne avant mën naa ko ak euh, euh, ak sama loxo baax du ma xaalis. Mhm. je je préfère di ko may quoi mais mais nag nit ñi buñ buñ ma commencé di ma sonal et tout léegi bu ci laa bëggee wàññi nit ñi mën na léegi da ngay fay pour def. waaw mhm. noonu mhm. mu ngi noonu Tito la nekk fii ci Liberté 4 ci ono bi numéro téléphone am yaakaar naa dina daw ci service commercial bi euh, tey koor gi ak sa liggéey est-ce que dina yomb. liggéey bi tatouage bi. am na ay vidéo yu ma jot a gis léegi bi ñu dugg yaa ngi naan ma est-ce que woor nga. Mm. liggéey bi ak koor gi est-ce que dina yomb. waaw mais bu dee bu dee ci man franchement mais dina yomb ci man parce que euh, ci njëlbeen nee naa la wooruma kon donc ci ko fi ko wooruma. Mm. mais bu dee man moom du ma ko daw comprendre nga. Mm. mais mais mais tamit euh, man wooruma faut pas dire ni yow boo ñëwee damay dama naan fu je m'en fous parce que man li may gis sama bët di ko attendre ak ci weer beeg ci weer beeg ci année beeg ci bu ne. cela veut pas dire que yow tam boo ñëwee foog nga attan ko. Mhm. moo tax bi nga duggee sànq ndaw si bi muy sumeeku moo tax ma laaj leen mais est-ce que wóor ngeen balaa mu leen nii. Mhm. déranger un peu quoi. dëgg la mais bi ngeen ne non euh, wóor nañ mais mais comme que ci cadre liggéey la. Mhm. mën nañ ci mën nañ ci dem. donc du coup loolu tamit c'est normal quoi moo tax ma ne franchement man moom sama liggéey koor gi ba damay continuer. waaye mais kiiwul dara. yàqaluma dara man. tey mu mel ni am na ñoo xamante ni su ma leen ko waxee dinañ ko gëm que ni yow da ngay liggéey nekk ak sa famille parce que ñu bari yaakaar nañ ni tey Tito man lu la yaakaaroon da nga nekk sa benn appartement nekk fa tey ñu ñëw nga nekk ak sa famille ak sa njaboot di liggéey kon mu mel ni yow liggéey bi quant li ci gars yi di wax. Hmm. ak yow li li li am c'est différent en fait. waaye si si en fait euh, euh, dëgg la parce que euh, li nga wax nii moo am parce que gars yu bari ñoom genre bu ñu ma gisee en face de face dañ ma naan ni mais yow ni nga mel sa liggéey ak de face bokkul mais loolu noonu en loolu man maa ko tey nu mu mooy. dama ne carrément li ngay jaay moo lay jaay comprendre nga. Mhm. Euh, léegi nag euh, soo bëggee démarqué wu. Mhm. foog ngay def loo xam ne maanaam diw def ko. Mhm. foog nga sañ loo xam ne mais ba mais diw sañu ko. léegi nag boo ci paree yooyu euh, boo ci paree mën nga ànd ak ñëpp dund. comme il faut quoi. loolu moo tax ma ne man ma liggéey ci appartement man ka si tëju comprendre nga war ma dem ci boutique. wala ma toog sama famille c'est la même chose comprendre nga. mais nag li may jaay nag man maa ci boole jaay jaay yooyu yooyu yooyu. comprendre nga. la demee mais ça n'a rien à voir vie de famille parce que yàqul ma dara. Mhm. tey tey liggéey bi est-ce que est-ce que parce que man moom wax dëgg yàlla maîtrise bi nga am man daw ma ko tey maîtrise boobu noonu nan nga mën a maîtriser nga tiim xale yu jigéen yi ak seen i business ak yooyu noonu di leen tëtuwaat te yow du la déranger ci dara. waaw mais loolu noonu kii la rek mooy mooy fait euh, tàmm la tàmm mooy comme comme euh, boo koy doo ko gis ba loolu moom euh, du mën a déranger mais. mais boo da lay jaaxal. Mhm. mooy mooy boo koy mooy premier jour boo ko doon dafay da lay jaaxal. Mhm. Euh, léegi nag boo koy gis fréquemment fréquemment yaa ngi koy commencé miin. Mhm. léegi nag léegi nag boo demee ba miin ko laa di ko maîtriser boo ko boo ko maîtriser saa boo ko gisee tak da nga naan liggéey bi. liggéey bi laay def mais mais mais doone lii neex na wala neex mais des fois tamit doo ko tiim nii tamit des fois nga tiim xam nga tamit ceeb yi bokkul ceeb yi am na ay ceebu jën maafe subu kaaña des fois est-ce que doo tiim benn plat tamit nga ni sa xel na ci non non mais en fait euh, mais mais loolu noonu moo tax ma ne carrément des fois franchement xam xam xam bët bët mooy xool mais mais bët bu ko gisee dina xam ne kii dafa xees kii dafa ñuul kii dafa duuf kii dafa ndaw et mm-hmm. mais mais mais moment wu ay moment yu cafka bi instant si xel da koy sa xel lu mu koy dàkkee mooy da nga naan kii xaama liggéeyal ko mu dem gaaw keneen ñëw kii ma liggéey mu dem gaaw loolu mooy maîtrise bi mm-hmm. moo tax ma ne boo amee maîtrise en fait dootu dootoo gisati gisati sexualité bi mm-hmm. parce que sexualité bi ba tey mi ngi ci yow mais mais boo ko waree yëg day nekk mm-hmm. dafay nekkee beneen anam boo xam du ci liggéey bi tey ci cadre liggéey bi est-ce que du doo ci gis des fois ñoo xamante ni euh, dañuy liggéey da nga leen di liggéeyal dem ba ci biir ñu ñu am santiment ci yow wala ñu dem ba ci biir bëgg ba ba ba di la proposer ay ay nekk ak yow ak sa cadre liggéey. waa mais loolu moom mënul ñàkk quoi mu ci liggéeyu journalisme bi di ci liggéeyu animateur yeeg. ci mhm. liggéeyu xam nga. Mhm. waykat yeeg bureaucrate bi et tout ba mais mais en fait euh, euh, euh, tout temps léegi boo xam dafa am contact. Mhm. dina am ñoo xam ne moom dañ lay jéppi te pourtant ñu ñëw ci yow. dina am aussi ñoo xam ne ñoo tamit dañ lay naw. te comprendre te ku la naw mën na am. cofeel dina jur foofu noonu wala benn mbëggeel quoi. Mhm. comprendre nga vrai que nag loolu taxu ko taxu ko woon jug. Mhm. mais mais bon comme que jàkkaarloo nag na mhm. nag ci danga maa neex boobu toog lu may loolu genre benn jat la. yaay xool ba xam yow da nga dem ba jeex wala da nga naan da ngay esquiver quoi. mais yow mosoo ci échec. waaw non non mënul échec ba euh, euh, noonu ma ci échec. parce que xam-xam jeune laa woon. waaw mais ba léegi sax jeune laa quoi waaw euh, euh, euh, mais ba jeex. parce que <laughs> mais bon léegi mais bon léegi fii ko xam rek ak jabar jeeg yooyu. waaw en ah, des fois daan nga nekk ci job bi nii benn boy ni la noo seeg cest à nga feel ko dem sa yoon. baa non affaire affaire genre en général day nekk ay way da nga maa neex maa la raw et tout jëlante numéro da mhm. am affaire garde contact et tout di déggante mhm. ba loolu ma avant su ma nee mosul am ba damay wax lu ma neex mhm. loolu du ma ne sax mos na am mais yàgg na am waaye mais tamit baa plus plus ngay avancé plus nga ne waaye mais même bu mu ko bëggee tamit loolu mën na am du moom du moom jot bi comprendre parce que bu fekkee ne ok comme man damay liggéey sama gaale yeewu liggéey ba ay guddi ma tëdd mm-hmm. nelaw et tout mm-hmm. même bu fekkee bëgg naa rëcc ba du yomb ko mm-hmm. sa cadre liggéey ban heure ngay ngay ubbi ak ban heure ngay arrêté mais man baa mën naa commencé ay dix ma pare ay vingt heures wala vingt une heures comme ça en euh, euh, tout dépend ci tout dépend ci man daal amul ay euh, heure fixe mais si sa cadre yaag sa soxna moom du ci du ci am jaloux xale yu jigéen di dugg ko génn ak yooyu noonu quoi wala confiance am na ci foofu. waaw non mais en fait jalousie moom jalousie moom euh, mënul ñàkk moom mais parce que nit moom mais des fois foog nga koy fiire. Mm-hmm. ok d' accord des fois foog nga koy fiire ah veut pas dire que ni euh, ku woote téléphone rek de ça ma que na bëgg tatoué et tout nga ne nga yuuxu comprendre nga parce que bu loolu bu amee rek yow instant yow liggéeyam. Mm-hmm. comprendre nga mais métti ñun góor képp euh, képp kuy képp kuy dëgg dëgg yow nga war a choisir mm-hmm. sa liggéey baa sa jabar franchement mm-hmm. nag man bu doon man mm-hmm. suma liggéey laay choisir comprends nga mais parce que quoi euh, euh, bu dee liggéey bi moo lay dundal moo lay mosal mooy tax ngay yow yow ngay joxe ñi nga war a joxe comprends nga mais bu dee jabar bu toogee baax na bu demee baax na ko mën nga amaat beneen mais liggéey mënoo ci am yeneen mais ci cadre tatouage bi yan yan yan partie la xale yu jigéen yi gën a bëgg que di ko waaye man man moom man moom lu may tatoué euh, genre mais lu bëri bëri bëri bëri bëri ba franchement ci suuf si lu ko mooy mooy jigéen seen yéen yi. Mhm. man moom loolu laay ëpp. lu may def seen yéen yi. waaw seen seen yéen yi moom laay ëpp lu may def. Mhm. mais tamit euh, euh, euh, à part yéen yi ba ñoom engendré seen yaram quoi ay soit ay mbagg wala ay tànk. Mhm. wala ay poche yooyu noonu mais yéen moom pour le moment. tey tey tey tey tey liggéey bi ban message ngay lancé ñi nga xamante ni sama classe nga xam ne da ngay jékki-jékki rek ubbi sa ubbi sa benn bitik ñëw ni da ngay tatouage di liggéey parce que liggéey bi tamit dafa mel ni risque ngi ci. tamit parce que bi ma duggee sa bureau gis naa nga teg fa ay gan teg fa ay matériel comme ku yor benn benn pharmacie daa en fait. waaye mm-hmm. si si parce que en fait euh, euh, euh, maanaam liggéey bi liggéey bi mooy liggéey boo xam ne da nga am contact ak nit ñi. Mm-hmm. boo amee contact ak mais mais mais mais ak nit ñi. booy am contact ak mais ak ñi da ngay amaale contact ak seen deret. Mm-hmm. parce que quoi tatouage nekkul dessin boo xam ne big moo koy def wala ñu doon bokkul. mais tatouage dafa nekk liggéey boo xam ne dessin dessin boo xam ne en fait yaram dañ koy cuut. da ngay piqué yaram bi en fait. Mm-hmm. léegi nag boo piqué euh, c' est pas force que day naaj. Mm-hmm. mais des fois mën na naaj. Mm-hmm. léegi nag vu que nag des fois mën na naaj te loolu noonu. nga protégé wu yow personnel. personnellement foog nga protéger wu. foog nga protéger nit ki foog nga aussi nit ci topp. nooy protéger sa bopp mooy di nga sol ay a jël say matuwaay. comprendre na ngay protéger nit ki mooy yaramam di ko désinfecté. di nga désinfecté yaramam euh, euh, maanaam li ngay liggéeyee. loolu noonu moom kasa moo koy moom comprendre moom loolu mooy wane ni. yow aar nga sa bopp aar nga ko léegi tamit léegi nag keneen ko war a ñëw pour aar ko léegi yow lépp loo utilisé pour kii da nga koy puus jël beneen bu bees comme ça day nekk yow ak yow ak ki ci topp loolu mooy wane en fait yow di nga aar sa bopp aar aussi ñëpp ñëpp ñuy ñëw ci yow mais par rapport ak liggéey bi liggéey bi liggéey bi ak ak weeru koor gi ak avant weeru koor gi ci cadre client yi nga yaakaar est-ce que ban mooy lan moo ci lan moo ci gën a dox ba ba franchement Euh, mais man en fait yàgg naa ci liggéey bi te yàgg naa ko seetlu quoi mais bu fekkee liggéey bi genre bu fekkee ni euh, euh, moom mooy depuis koor gi. Mm-hmm. depuis koor gi ma ay benn ñaar ñuy gis. bu fekkee genre ooy genre bu ñu ne nii suba la ñuy koor. Mm-hmm. su mais suba la koor gi jour koor bi. ay mm-hmm. benn ñaar ñuy gis moom. mais cinq jours six jours nit ñi dañuy normal. mais mais mais loolu moo tax man la carrément ñoo xam ne ñoom dañ doon dund gistal mhm. franchement duñ ko yeggale mhm. comprendre nga mhm. mais mais koo xam ne xam ne carrément yàgg na jaamu yàlla cinq sur cinq comprendre nga mais koor day ñëw mu continuer ko parce que métti dafa euh, nekkul lu bees ci moom comprendre nga léeg-léeg kooku noonu mën na ne carrément non man damay woor te peut-être islam bëgg ko non du dem ci tukoo léegi parce que damay woor mhm. mais am na ñoo xam ne dañuy woor une deux trois quatre xam nga mëri na et ah. sonn nañ ci pare nañ ci dañuy continuer seen vie mhm. buñ continuer seen vie na baax mën nañ ñëw ci man wala ñu dem ci feneen mhm. defi leneen quoi mais des des fois des fois duñ est-ce que du ñàkk tamit nga gis yenn jigéen ñi ñëw di la di la proposer comme duma ma ko rejeté parce que parce que la moo tax du ma ko rejeté mooy euh, tatouage mooy liggéey boo xam ne dañ koy def ci ci yaram. Mm-hmm. léegi nag euh, yaram loxo mi ngi ci bopp mi ngi ci tànk mi ngi ci sexe mi ngi ci fépp ngi ci léegi nag yow nag bu fekkee yow da nga ne man lii laay liggéey. Mm-hmm. nit ki mooy ñëw ne la. damaa bëgg dessin bi yow nga laaj ko yow foo ko bëgg def mënal sama sexe mais foo nga def ko parce que yow yaa bëgg liggéey bi mais foo nga def sexe léegi nag léegi nag bu fekkee yow da ne man loolu mënuma ko ah, léegi bu fekkee bu fekkee yow da ne ah, man damay liggéey lii mais mais man du ma tatoué mais c'est parce que c'est parce que yow da nga lu rëy la mm-hmm. mais ci cadre liggéey sexe rëyatul mm-hmm. la tax rëyatul mooy kii dafa ne fii la fii lay tatoué mais dessiné ko et puis c'est bon man loolu mënuma ko ah, man de mën naa ko taxama euh, tout temps man dama koy def quoi jàkkaarloog sexe nii tatouage nii pare mu dem euh, non mais loolu mais loolu ñàkk moo tax ma ne la loolu moo tax ma ne la carrément en fait loolu moo tax ma ne la carrément ji en fait euh, mooy mooy moom mooy ci njëlbeen. Mm-hmm. Ah, loolu dalay jaaxal comprendre nga. Mm-hmm. léegi boo demee ba euh, boo demee ba ci kanam ba ci kanam mm-hmm. instant yi yaa ngi koy commencé tàmm. comprendre nga léegi nag boo ko tàmmee ba miin ko ci nga koy maîtriser boo ko maîtriser mën nga xool ni sax naan nii nii tax du la saf. comprendre nga mais du la saf boobaa dee que ni safu la à vie. du safu la fii ok d' accord parce que am liggéey mais moo beneen cadre lay beneen beneen gis. liggéey bi liggéey bi ngay gis. waaw d' accord mais tey tatouage yooyu noonu comme ci yenn koor yi ay sexe ak yooyu noonu comme maanaam bu nekkee weeru koor danga naan man lii laay tatouage wala bu nekkul weeru koor da nga naan damay bàyyi bu koor gi jàll. man lépp laay tatouage amul amul euh, euh, euh, franchement même bu fekkoon man man dama damay woor nii nii. ah euh, sexe bu ñuy dem koy def ci biir koor la moo tax euh, la moo tax man ma ci biir koor. <laughs> Euh, loolu loolu moom loolu moom sa diine bopp la quoi. waaw ah, donc ah, si si en fait la moo tax man ma ci biir koor ah ñëpp xam nañ ne gynécologue am na. Mm-hmm. ok d' ñëpp xam nañ ne am na gynécologue yu góor. Mhm. comme am na gynécologue yu jigéen. Mhm. d' léegi boo xoolee ci internet bi ah, nga mais boo demee foofu di nga gis rang bi. Mhm. comprendre nga léegi mais mais léegi moom euh, euh, bu fekkee ni euh, moom mun na am day woor parce que musulman la. te loolu par force am na Sénégal. léegi gynécologue boobu bu fekkee dafa woor client yi jigéen ñi ñëw mais du mais di consulté nekkul ni jigéen bi mais bi ñu nàppee mu naan nii. mais di lamb mais day xool di gis affaire bi comprendre nga bu bu bu waree loqati day loqati bu waree def nii day def nii parce que mooy liggéeyam. mais loolu am na ci liggéey bi loolu. mais loolu am na seen liggéey yow. sama liggéey man. Hmm. ay làmb yooyu noonu. Hmm. genre de manipuler bien sûr am na am na ci parce que parce que lépp looy dessiné boo koy fomp mais da nga naan nii di ko fomp c'est normal boo koy liggéey tam da nga naan di dessiné boo koy bën nag boo koy ah mais loolu maîtrise moo moo tax ma ne affaire yi la rek. Mhm. moom en fait euh, euh, en fait la la la laa bëgg wax fii dama bëgg wax ni en fait euh, maanaam liggéey ah liggéey am na comprendre ci boo ko mënee boo ko gëmee. Mhm. diine aussi am na boo ko mënee boo ko kiiwee. Mhm. mais léegi bu fekkee nag liggéey bi boo ci def ci caay-caay. maanaam diine bugg ko. comprendre def ci caay-caay moom mooy comme si man dama woor. gis naa gis naa taatu jigéen bi mais maa ngi ciy yëg neex. non hmm. diine bi danaan carrément demal demal lekki wala demal naani hmm. comprendre nga hmm. mais fekkee ni yow maanaam gynécologue nga ibaadu nga tapparan am na ah mais tamit gis nga ay taat da ngaa da woor yaa ngi koy manipuler loolu garaawul comprendre nga maanaam au fait bu dee ci société bi garaawul mais parce que quoi sentir oo dara mais franchement bu dee ci islam islam bëgg ko comprendre la moo tax ma ne islam bëgg ko parce que islam dafa ne dafa ne carrément lépp luy xam ne muy taat lu dul sa taatu jabar bi nga moom amoo droit teg ci bët comprendre la mhm. euh, taman mën naa ne sax man peut mais sama jabar baa mën na mën na am góor a ko rawale te góor boobu noonu gis na sama taaru jabar te pourtant te mhm. loolu mooy en fait waa kii nii jabaru jàmbur la maa ngi liggéey ci taatam mais kii moom la de jéema nii xam gel bi xaw a tooy nga roof mhm. xam nga en fait bi moo waral roof bi loolu moo tax islam mu ne carrément góor boo xam ne Euh, taat boo xam ne euh, du sa nekkul sa jabar amoo droit xool ko teg ko bët. mais bëri looy looy looy parce maa ngi ñëw rek fi benn benn benn daam laa bëri na looy tatouageal comme ay ay ay troisième âge ba deuxième âge bi yooyu noonu. waaw mais bëri na bëri na même même euh, xanaa xam même booy nawee genre genre dix neuf ba vingt trois loolu c' est très ma tatoué ko mais tout le temps lu may tatoué mooy trentaine jëm kaw. Hmm. mais ay dix neuf vingt trois loolu c' est très mais léegi ci ci cadre sëy ci cadre sëy parce que souvent ñu bari ñu koy def dañ koy def pour bu ñu nekkee seen borom kër bu ñu sumee ko mu rafet loolu noonu ban secret la ci sëy waaw mais loolu moom loolu moom franchement tamit euh, am na quoi parce que man euh, mais ñu bëri ñu may tatoué mais ñooñu noonu dafa nekk jigéen ñoo xam ne ñoom dañoo am dañoo kër mm-hmm. mais léegi nag ñoom nag ñoom nag dañ naan carrément bon peut-être yàgg naa ci mariage bi damaa bëgg fële feneen. Mhm. tu vois mais sama jëkkër mi mi mi euh, mi ma ci Europe nekk. Mhm. yàgg naa gis tatouage moom tatouage neex na ko. Mhm. wala boog sama jëkkër mi ngi fii nii. Euh, jigéen bu tatoué da ko neex man tamit damay tatoué. mais wala tamit ñu ànd seen jëkkër ñëw ba ma tatoué leen seen kanamu jëkkër loolu dara. genre affaire kiff la quoi. ñu gis ni léegi Tyco dafa dafa màgg Ah, boo xoolee ay année ci ginnaaw sinap bi fii coow li fële léegi ñu gis ni léegi léegi dafa dafa màgg kenn déggatu ko ci dara liggéey jàpp ñàmburam ko lan la qu'est-ce qui se passe. non non euh, euh, non màgguma de màgguma de mais dofuma la moo tax ma ne dofuma mooy. xam naa ne fi ma jaaroon ah su ma fa jaaree dañu dañu may tëj kaso mm-hmm. te man franchement nekkul ni dama ragal kaso mais dama bëggul kaso tardel ma mm-hmm. la ma tax bëgguma kaso tardel ma parce que dama bëgg génn di liggéey mm-hmm. di may dox samay samay soxla comprendre mais nekkul dama manque de instant bi dama xam ne waa Sénégal ne nañ carrément amoo droit tatoué taat amoo droit bënd taat tatoué yam liggéey amul problème mais amoo droit wane ko jaxaran bu dee Sénégal ah, moo tax man dama ne ok ah, woon loolu noonu non en fait euh, euh, maanaam fii nii euh, bi may tëj dañ ma ne am nga droit tatué que loolu liggéey la. jël micro bi micro liggéey ci taat parce que loolu liggéey la te vous vous êtes majeur ki koy def il est majeur jigéen buy ñëw tëdd ci ci yow ŋàppe ay taatam moo tax majeur na donc du ko yoonu kenn newu ci. comprendre nga mais amoo droit photo taat bi won ko ñëpp. Mhm. ñëpp ñu ngi gis parce que ñii bëgg nañu gis ñii bëgguñu ko gis. Mhm. comprendre nga mhm. léegi nag loolu moo tax ñu ne ñoom bu dee Sénégal dañ ko fiy tere comprendre nga léegi comme que Sénégal dañ ko ok d'accord duñ ko wane Sénégal mais su ma demee beneen réew am naa droit wane ko te man saa ma demee réewu jàmm génn Sénégal dama koy wane normal su ma ñëwee Sénégal toogaat ne Thiel parce que parce que dofu ma na xam naa ne su ma ko dugalee fii dañu may tëj mhm. te te man bëgg ma ko ma tëjaat mhm. noonu la demee quoi mais nekku dama yaru rek dama màgg de mhm. li fi nekkoon daa ba léegi moo fi <laughs> ci recevoir bi ñu recevoir donte xat nga biñ la woowee aussi tamit jaar la ko ci Maïssa El Prési muy sa frère moom tamit biñ ko laajee sa numéro dañu koo jox sans problème yow tamit biñ la woowee dang ñu bu nekkee ci liggéey la rek ñëw leen kon ça veut dire que nekk nga nit ku baax may may seede loolu tey tey tey liggéey bi lan lan nga ci mës dund loo xamante ni des fois da ngay toog nga koy rëccu muy loo xamante ni parce que sa sa liggéey moom du yàgg góor mais sa liggéey yàgg jigéen la moo xam ay jigéen def la pêche genre yooyu quoi loo xam ne da ngay toog di ko regretter. Euh, non man moom franchement euh, euh, maanaam pour le moment ah, en fait sama liggéey amaguma ci regret Mhm. la moo tax amaguma ci regret mooy dama ne man maa choisir liggéey lii kon boog mhm. maanaam su may mosal ok man euh, man euh, fait dama ci dem kanam bu fekkee tamit dama ci am aussi benn petit nakar aussi dama koy muñ tam dem ci kanam parce que maa ci dugg. Mhm. comprends nga loolu moo tax ma ne jamono jooju man en fait euh, nit mënuguma def loo xam ne sama liggéey loo xam ne dama koy daf may dama dama dama dama koy méttitlu. wala man ma ne non je regrette. non non parce que maa carrément maa ci jublu. muy neex man la muy nakari man la. daanaka ñu ngi ci cëppaandaw émission bi te client yaa ngi taxaw di la xaar vraiment danga bàyyi lu bari sax ngir ñun ay sa mot de la fin lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé ñi nga xam ne dañoo nekk ci métier mi aussi tamit ay caaxaan ak ay détails dugal leen ci quoi. waaw mais man moom xam rek ma ngi leen di maa maa ngi leen di gërëm et tout xam nga tamit di leen di leen parce que tamit li liggéey la ba tey liggéey la. Mm-hmm. tu vois donc du coup ba mën nga am mën na am aussi waroon ngeen def euh, yeneen affaire ci yeneen euh, parce que parce que bu ne. ak li nga war a def. te comprendre te attente bi yàgg na parce que sama rendez-vous bi à 13h la woon. Mhm. loolu kon maa ngi ciy maa ngi ciy jégalu aussi te tamit euh, ñoo xam ne ñoom euh, du ma ne sax du ma sax ñi nekk sama liggéey mais man euh, li may conseiller jeunes sénégal yi. Mhm. moom mooy fiyeek ñoom ñu ngi toog naan carrément Macky Sall liggéeyuñu. comprendre non franchement yow yaa liggéeyul. Mhm. ndax Macky Sall moom euh, palais mooy mooy bureau am. Mhm. nga mi ngay salaire boppam. Mhm. mais tamit yor na këru boppam kon moom mi ngi liggéey. coompa mais yow muy toog ci benn taatu garab di caañ et tout. non yaa liggéeyul. kon donc du coup boo booy xaar Macky Sall. maanaam bu mu wutale salaire. munul nekk. booy xaar Macky Sall wutal la liggéey mënul nekk. Mhm. tu vois booy xaar ministre bi wala lii mënul nekk donc du coup yow yaay xool yow lan nga bëgg. Mhm. yow nga liggéey ko. Mhm. wala wal nga dem sa benn mbokk. ne ko man lii mooy son projet jàppale ma man euh, ma mën a avancer. mais parce que euh, man dama jàpp ni président maanaam euh, maanaam li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy. xàll yoon yi. Hmm. mais parce que bu xàllee yoon yi mais man su ma euh, man su ma dem liggéey hmm. dootuma tardé. Hmm. dootuma am am temps euh, du euh, am embouteillage du amati quoi. léegi man na bu fekkee liggéey naa mais ba dajale. deuxième affaire bi mais président war def mooy. retaxal réew ak réew. moom mooy wane ni maanaam France ak Sénégal juboo nañ. liggéey naa maanaam dajal naa am xaalis bu bëri. damay dem demande visa. wóolu nañ Sénégalais yi nañ ma dem naa dem naa dem naa tukki continuer sama liggéey. comprendre nga mais man su ma toogee ne non dëkk bi doxul ko mm-hmm. c'est que Macky Sall barki yàlla du mos a dox ci man. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. donc du coup na jeunes yi jóg liggéey. te xam nga bañ nekk fi naan président président président. kon ñu ngi am contentement lool ci ci jàkkaarloog yow aussi. maa ngi leen di gërëm di leen sant. ok merci ok jaajëf.